CNG CNG accompagné ma ci ma ñëw defaraat ko daal ci ci ni ñu ko defal. Lamsaar fu mu toll. Lamsaar fu mu toll am nañ ay combat ñi ngi xaar aussi yeneen i combat way loo gisee bis bi. bis bi rëy na rafet na aussi taaru na ñuy xaar daal xëy na combat bu neex ku nga xamante ni dafay ñëw di jël ci revanche ak aussi ku bëgg a confirmer donc daal ñu di leen di wax le mieux rek. mbokk waa diaspora waa diaspora xanaa di leen nuyu di leen ziar bu baax xamante ne ñeen man nekk nañ samay xarit. ñi nekk Espagne ñi nekk agence pro bi yëpp daal bu ñu ko waxee mën nañu wax lépp mais maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp maa ngi nuyu Pape Diop bi nga xamante ni suñu frère la ñoom Omar Diop vraiment ñoom Modou Seye ñoom ñi nekk bitim réew ñëpp daal vraiment ñu leen di nuyu bu baax a baax a baax aussi te di leen ziar. président Cheikh Niang président écurie Lamsar. jërëjëf Bour Gueweul. kontaan saat ci bi mu yàqoo dafa ñëw jël li nga xam ne moom mooy saisi defaraat ko ci ay moyens boppam loolu nag la làmb bëgg loolu la lamb soxla làmb soxlawul luy yàq soxla tuñu violence li ñu soxla mooy lépp loo xamante ne lu koy defar la wala lu ko mën a jëmale kanam wala xalaat bu rafet te yaakaar naa ne saa su nekk e loolu ñu ngi ciy dox di ci wax eh, loolu moo mën a jëmale làmb ca kaw ca kanam e loo xam ñëpp dañ ko bokk suñ la laajoon sa sport national mooy lamb moom la ñu moom moomuñu basket moomuñu football moomuñu leneen yooyu yëpp ñun li ñu moom mooy suñu sport national loolu moom mooy làmb kon nag bu ñu amee mbir dañ koy fonk use bu toll nii 32 milliards bu ñu la ko defalee danga koy téye da koy fonk da koy téye ndax li olof naan benn bëñ day fonk te weex kon nag bu ñu la mbir nga yore ko dangay xam ni nga koy def xam ni koy doxalee xam naka nga ko mën a téye te loolu bokk na ci li nga xamante ni am na solo ci wàllu làmb tey tey na ñaar ñi nga xamante ni may saal mais maa ngi lay ziar. naa la ziar naa la bu baax. indi. sant rek. incha allah yàlla dinañu may ndam. waaj nañ ko bu baax waaj nañ bis lu mu laaj. dal rek dal. dal la laaj ba gis loo war a def nga def ko. lu ngay bëree tey. ah lu ngay rek. bañ a parax parax waay xam na li indi. xam na li mu bëgg. waaw xam na fi làmb ji toll. waaw toll ni daal. moom la ñuy xaar damaa xamul lu ku ko téye. ziar di kontaan si yow. jërëjëf euh, noonu. mais Modou ñu ngi lay ziar. ngi lay fay booy na naa la dóor mu daan de. beneen combat mu ci biir géew bi. ok ok ndeysaan beneen combat mu ci biir géew bi mais mbëri Gaston yi nag man xam ma ci kenn waaw rëg-rëg ñëw na fi sànq. calki ak rëg-rëg de ñoom ñaar ñoo nekk ci biir géew bi. Calki ak euh, Reug Reug numéro 2 ñoom ñaar mooy deuxième combat bi tey ñu ngi ci biir géew bi Calki ak Reug Reug 2 ñu ngi ci biir géew bi ñoom ñaar Reug Reug Ouzin Keita mooy tus noonu é Caetano Moitos,